abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér aju ci réew mi ak ci bitim lan bikum sëy ba doxoon ci diggante xalifa Sall ak yeewi askan wi jeex na takk lakk intaha allah la dépêche yéen kaay ñu ko xamal l'observateur na ko faalay waxal lu tax waa yeewi askan wi fa ñoo tuumaal Khalifa sàll ak ñam ànd ak taxaw Sénégal ne ñoom ay workat lañ fañ leen a wor moo tax fi mu toll nii xalifa sàll fañ koo kajj dàq moo waa taxaw ca biir yeewi askan wa léese ko yéen kaay dëggal ko na taxawu kay fañ leen a dàq fi mu toll nii ca biir yeewi askan wa ndax fa wax na ay workat lañ yow fa ngay xool waa taxaw yi fa njiitaram Macky Sall ànd ak moom moo xam ca assemblée nationale la moo xam ca dialogue politique ba la wan ginnaaw waa yeewi Dakar presse yéene kaay ne moo taxit Khalifa Sall fañ koo seppi dàq ca biti génnee ko yeewi yéene kaay bi ne njiitaram Macky Sall la mu bëggoon fa koo xam fi mu toll nii te mooy tas na yeewi askan wi ba taxawal fajiri yéene kaay ne taxawu kay Khalifa Sall ak bennoo fi mu toll ni fa ñoo neexoo te mooy yéene kaay ne bennoo kay ak Khalifa Sall taxaw fi mu toll ni ña nga mel ni mburoog soow bés bi yéene kaay ne yu leer naññ tax ngeen xam ne toll ni intaha diggante ba jeex na tasaaroo nañ yaaw fa ngay xool Barthélemy Diaz fa jël poste bi nga xam ne mooy poste premier adjoint au maire ca mairie bu Ndakaaru Abbas Fall moo ko doonoon bu Pastef léegi fa koo nangu nag jox ko Ngóone Mbeng bu taxawu Sénégal moom maire bu Ndakaaru nee na waa Pastef ya fañ leen a jox ay poste te ñoom ñu ne bëgguñ ko regard yéen a kaay ne Barthélemy Diaz kay fa doggali waa Pastef yi ayo parti boo xam ne fañ koo tas seen njiit la Sonko ñu jàpp tëj kaso jafe-jafe yooyu ñu nekk Barthélemy Diaz moom mottali doggali leen bañ gën a dee ndax juróomi amoon ca mairie bu ndakaaru fa nangu yëpp benn conseil rek moo fa des laas yéen kaay na ko faala ci yokkal Abba Mbaye bokk ci taxaw Khalifa Sall fa yàq lu mel ne xeme Ousmane sonk ak ñim xàndal source ay yéen kaay na Abba Mbaye kay xamul lu mu bàyyi waa sonk yi donte wax na tamit ne Juan Branco li mu def Sénégal gàcce la ndax fa ñëw saaga suñu xàttekat yi wax kàddu yi ñaaw procureur te tegut ko fenn ba pare ñu mujj bàyyi ko mu dem mu ëlbatiku moom Abba Mbaye ne ñun waa taxaw Khalifa Sall erreur bi ñu def mooy fa waroon a leeral sénégalais yi charte yi dox suñu diggante ak yeewi waaye ko ba tey moo tax fa ci ñun l'évidence yéen kaay ne loolu yëpp nag fay firndeel ñàkkante gi dox jamono ji ci diggante Khalifa Sall ak Sonko Ousmane Sonko moom nag l'observateur fa xëy di ñu xamal wàllu génnee bi ko gars yi bëgg a génnee ci fichier électoral bi ba tax dootul mën a fal dootul mën a fale ah. yaaw fa ngay xool daaniñ ko daan ci mbiru aji saar yi bi ak leetar bi nga xam ne su préfet bu Ngor Almadi fu ko bind commissaire bu jëppal derkele pour firndeel ko dogal bi ni mel bi nga xam ne fay undu ne njiital Pastef du nekk ku mën a fal waxuma laak bay sàkku ñu fal ko yéene kaay bi ne xeex bu metti nag moo ci nar a am ci wàllug yoon leer nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne 2024 presque ba léegi leerut ñan ñoo ci war a bokk diggante Khalifa Sall Karim Wade Ousmane Sonko ba ci njiitiram Macky Sall seen candidat bi dafa des aw xambin turbine yéen a kaay na ko faa lay waxal xaw ma kan waaye benn bokk yaakaar moom fa ñuy am ñetti candidat ah, yaaw seetal Amadou Ba fay nekk candidat Abdoulaye Daouda Diallo fay nekk candidat Aly Ngouille Ndiaye fay nekk candidat Amadou Mame Diop mën naa nekk moom it candidat njiitiram Macky Sall moom looloo ko jaaxal ndax ñetti ñi ma leen wax kenn ci ñoom du topp ci gannaaw morom ka bés bi yéen a kaay na ko fa mel li nga waxee dëgg de ndax Amadou Ba ay farandooram ñi ngi wër ci biir xam ne moom mooy nekk candidat Macky wala boog fay préparé aw yoonu boppam kenn ci jege ñaale Amadou Ba yi ne cellule yooyu Amadou Ba yëgut ko de waaye nag kenn terewut ko am nañ ci droit critique yéene kaay na Ali Mané bu moom nee na Amadou Ba la bëgg ñu def ko candidat bennoo exclusif yéene kaay ne soxna yi nga xam ne ñoo nekk APR bu Géejawaay ñoom i tamit Amadou Ba lañ bëgg Macky def ko candidat l'évidence yéene kaay dëggal ko leer la nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ñaar fukki patriote ak ñett ñu bokkoon ca Pastef yóbbu nañ leen kaso niki démb source ay yéene kaay ne lukkat jàppaate gi ñu jàpp gën di takkarnaase bët bu set nga dégg ba léegi bàyyiwut xiifal gi donte sàkku na ci waa Pastef nga xam ne ña ca kaso ga ñu arrêté seen grève de bi waaye moom fay continuer professeur Khadim Bamba Diagne ne teg loxo gi ñu teg Ousmane Sonko fa firndeel na suñ démocratie fa deltu ginnaaw ndax taxawaayam ak kàddu doon wax xeex système bi loolu démocratie fa ko soxla ma ngi ko waxee ca yor yor yéene kaay ba tey yéene kaay bi ne diiwaanu Ziguinchor fi mu toll nii essence fa faa manqué dem beeg dikk bi oto ya fa xam gàllankoor libération moom it di ñu xamal ne Hannibal Jim moom it ma ngay amal grève de la faim fukki fa ak benn ngi ni lekkut réew mi yéene kaay moom fa xëy di ñu xamal na Karim Wade donte assemblée nationale wote neen lu tax mu mën a bokk ci wote yi di ñëw waaye na ko wóor ne li ko gaañ rawee fa bari loolu te fa war a dabaate nag ayow koo xam ne ñaata at nekkoo ci réew mi réewum Sénégal gii nag njëgu dund gi fi mu toll ni fa cher ba jéggi dayo Le Soleil yéene kaay fa xëy di ñu xamal ne soble fi mu toll ni moom moo raw doom bu góor fa jafe ci réew mi ba pare fa cher ay kilo mille nangam léegi nag lëjum tamit fa cher fi mu toll nii ba tax Guy Marius Sagna ci Dakar Presse yéen kaay fa bi ngir ñu wax sénégalais li nga xam ne mooy dëgg te taxaw ci soble si Thierno Alassane Sall ne dara waralut ko lu may politique gouvernement bu Sénégal ci wàllu dund gi rawatina soble bi moo baaxut ma ko waxee ci info yéen kaay lii yéen kaay na man fay laajte est-ce soxna yi mën nañoo togg te duñ ci boolee soble xadi jaay lekk restaurant la yor mel ni ko daan ko loolu mënta nekk soble moo tax man fi mu toll nii faa jaayatut yaasa ah bu ñu naan yaasa soble saa tax di le quotidien yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne réewum Canada daluwaayu ndawal Sénégal la muy ambassade ba fañ koo tojate woon rajaxu ko ci ñaxtu yi fi xamoon léegi nag fukki nit ak juróom fañ leen a filmé xàmmee leen police bu Canada fi mu toll nii ña ngi leen di wër tàggat yaram Sadio maane ak Kalidou Koulibaly fa fañoo war a dajee final coupe araab des clubs yaw seetal démb Sadio Mané seen équipe a an Nasr fa ñoo mbuqi ak Chorta bu Iraq Sadio def fa match bu lottu na xam na fa occasion paas na Cristiano Ronaldo penalty bi sax Sadio Mané lañ gaañ moo ko andi Chris dóor ko ba tax stade yéen kaay na Sadio kay ak Chris fa ñoo déggoo léegi samdi nag ci la ñuy dajee ca final ba ñoog Al Hilal bu Kalidou Koulibaly libération moom fa xëy di ñu xamalaat juróomi sénégalais ay ndaw yu faatuwaat ci géej gi ndax fañ doon dem Barça mbaa Barsàq Espagne seen gaal ga suux libération na neexut a dégg waaye dax la mooy suuf soo xam ne fa la musiba naaru laa maanaam ndaw yi ña ngi fay faatu ci anam gu jéggi dayoo lépp ndax bëgg a dem bitim réew uti liggéey mën a